bi diggante nag combat Balla Gaye ak Tapha Tine dinaa la wax loo xam ne ci combat bi ba ilaa yawmi diin ba bisu combat bi kenn du ko mën a dindi mhm. général maa lay wax ba wax la mhm. na muy demee insha allahu rabbi dinaa la wax loo xam ne kenn du ko mën a dindi général mhm. ci combat Balla Gaye ak Tapha Tine ba ci Youssou Ndour telem boobu TFM buñ ko tëjul tamit dana ma TFM dina jërë ngeen jëf ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen yéen ñu faral si Yeumbeul Vision TV tey ñu dara Serigne Bachir Diop war a waxtaan moom ci actualité réew mi dinañ waxtaan moom ci li muy te mu ñëw dinañ waxtaan ak moom ci lépp loo xam te actualité réew mi la Serigne Bachir ñu ngi lay ziar alhamdulilah alhaji général ñoo ngi doon ziar bu baax alhamdulilah ah général nag tey dinaa leeral ay mbir yu bare ci làmb ji diggante Modou Lo ak Siteu mhm. dinaa leeral tamit diggante Balla Gaye ak Tapha Tine Balla Gaye Tapha Tine waa waa jàmba gën woo nañ ma di ma wax ma ko waaye naa leeral ci diggante combat Modou Lo Siteu boobu naa ci leeral loo xam ni lu yéeme la ci biir incha allahu rabbi diggante nag combat Balla Gaye ak Tapha Tine dinaa la wax loo xam ne ci combat bi ba ilaa yawmi diin ba bisu combat bi kenn du ko mën a dindi. Mm-hmm. général maa lay wax ba wax la combat bi ni muy demee. Mm-hmm. ak jour lamb na muy demee incha allahu rabbi dinaa la wax loo xam ne kenn du ko mën a dindi général. Mm-hmm. ci combat Balla Gaye ak Tapha Tine ba ci Youssou Ndour telem boobu TFM. bu ñu ko tëjee tamit dana ma jaaxal général. am na solo ginnaaw bi nga nuyoowee dinañ xuus waxtaan ak yow ci actualité réew mi surtout TFM mi nga wax bu ñu ko tëjee dina la jaaxal surtout combat yi xam te ne am nga loo ci bëgg leeral am am solo mais nag balaa ngay leeral loolu yépp dama bëgg askan bi yëpp comprendre yow li ngay wax ci lan nga ko teg yan façon seet ngay seet ba bay wax lu mel nii. alhamdulilah alhaji général seet maa fi ñu ko teg moom ci seet la ndax ñun dañuy wax ne suñu buntu lépp buntu ñaan mooy seet man damay faral di wax ne seet moom man maay ki ko dàq ci réew mi seet seet képp koo xam nag yaa ngi ko na table wala képp koo xam ne yaa ngi bëgg a xam man ba fa solaa seet ñëw toog sama saal bi man ba ñul mukk kenn gis naa na fama sëriñ bi na dima woo naa maa ngi dégg naan yaa dàq seet si réew mi wallahi ba ñu ma ko te képp koo xam nag yaa ngi am loo dara loo ci dingat ñëw sama saal bi ñu waxtaan ci xam-xam am na solo bi loolu jàllee yaa ngi wax sànq ci Youssou Ndour yaa ngi wax ci combat yi mais ci bi may commencé nag mooy combat bi dox diggante Balla Gaye 2 ak Tapha Tine mais ci leeral loo xam ne lu am am solo la alhamdulilah général diggante combat Balla Gaye ak Tapha wallahi maa na wax loo xam ne benn mi def du ko dindi Sénégal te li ma lay wax nii ci mbirum seet laa ko teg ci mbirum seet doomu aadama bu fekkee damaa fanaanoo ak yow mhm. balaa fanaanoo sa mbir wallahi bu ma xëyee lu ma ci wax du daj te mbindeefum yàlla mënu koo dindi général balaa ngay xuus ci combat damaa bëgg ñu waxtaan ci sa liggéey parce que sa liggéey bi ngay liggéey dafa yéem ñu bëree bëri mhm. euh, tey jii dañuy yaa ngi wax sànq ci seet mais Youssou Ndour bëgg naa nga leer ci lu am solo ak keneen ak keneen mais yan façon nopp ngay nopp bay noppal ñu bëree bëri. alhamdulilah général nopp day mbir moo xam ne damay wax ne bu amoon làmmi nopp dama wax ne du ma fa du ma faral kenn su ma faral sama du ma faral kenn mhm. damay nopp dama cee génne loo xam ne benn sëriñ mos koo génnee te maa ñaan bu ma kenn perat bu kenn def loo xam ne dañ naan kii kat sëñ bi dafa nopp général lii ma yor du ma wax bopp lan la du ma wax lan laa ko liggéeyee ku ko gis daal mi ngi nii ku ko soxla dama woo. ci nopp lay dox wallaay général nii vingt quatre heures lay dox vingt quatre heures ci lay dox mais ñi nekk Europe aussi bu ñu bëggee nga noppal leen dañu leen ci mën a nopp général man sama nopp bu la neexee ngay ñëw nan déggante ci su ma boo ko amee dafa la sama nopp am na solo combat bi nga wax sànq nga ne ci wax kan mooy daan tey jii ndax nit mën na la woo ci appel bi sans mu coupé nga seetal alxaaji général man nit mën na maa woo sans mu coupé wallaahi ma wax loo xam nañ wax ko ban bis la juddu wax ko ban bis la faat wax ko ñaanaa na ci posam général général seet du ci morom kenn général bu fekkee koo xam ne nag dafa bëgg maanaam ma seetal ko seetu tabiiyaat maam ma xam ay mbiram maam xam maanaam jëm ma xam ay bidiwam xam ay saraxam xam léppam day foto loxo càmmoñam boo foto loxo càmmoñam turam ak tur waajuram jigéen la ma jox général ma wax xam dañ mukk ba ilaa yawmi diin ñëw ci combat Balla Gaye Tapha Tine balaa ma ñëw ci combat Balla Gaye Tapha Tine dafa yooyu ci lan lay yëngatu alxaaji général ndombo yi de ñu bare koy faral di laaj di woote am na ñoo xam ne dañuy woote rek te duñ jënd maa ngi ñaan képp koo xam ne yitteelu la jur nga may woo nomba yi may rocc wàllum alal wax naa ne nomba yi képp koo takk di yëpp 3 mois te gisoo bu alal boo ñëwee la ma joxoon ma delloo ko boo ma joxoon 1 million ba ñoom delloo la ko tegale ci leneen may la ko ama solo ba tey dañu gis yeneen sunguf yi yoo xam yaa ngay faral di joxe sunguf yooyu ci lan lay dox alxaaj général sunguf yi ma rocc wàllum kattan sunguf yi ma rocc wàllum kattan képp koo xam ne sa soxna la sa soxna mënuloo ko dara ci kawlal bi boo ma woowee ci kattanu suñu borom insha allahu rabbi naa teg ci yoon woo xam ne insha allahu rabbi lépp loo bëggoon ci moom sax a daanu daal doo gaaw a daanu seeraal wolof njaare fa sa guddi neexul sa ndékk koo xam ne sa soxna a na boo xëyee da nga bëgg ndékk lu ñamuta la koo xam ne bëgg ngay ndékki ndékk na saa boo xëyee gaaw a woote lii nag day la fres day gaaw jeex saa boo ko mënee du yàgg day jeex kon gaaw leen woote ama solo balaa ñuy xuus nag ci li nga doon wax sànq lu leen Youssou dafa am beneen téere boo xam dafa mel téere baat la wala sax benn morceau bu weex ci lan lay doon. alxaaj général damay wax ni képp koo xam ne da bëgg bëgg bayre place képp koo xam nag da bëgg bëgg bayre place ku bayre place ñorut jëlu nga may woo bayre place ku bëgg lii su ma la ko joxee da nga guro guro gu xonk nga yëy ba mu mokk nga jël ko taqal ko si ba mu taq nga wékk ko sa bundu place waat naa ci yàlla waat naa ci yàlla général suñu borom du ma ko waatee caaxaat waat naa ci yàlla di nga ami kilaa ba doyal am na solo bi loolu yaa ngi doon wax sànq ci Balla Gaye Tapha Tine combat boobu loo ci bëgg a wax. ku ne nga may woo di wax waaye am na mbir yoo xam ne man dama ko leeral ci maanaam ci public du ko koo xam ne ñoom ñaar bëgg ngaa xam ci seen biir dara wala bëgg ngaa xam sarax yi nga xam ne boo ko defee maanaam incha allah di nga jël combat bi rawatina Balla Gaye ndax man dama ne Balla Gaye jamono ma wax yow ba jour la ba ba tey jii bu doon làmb tey jii la ma ne Balla Gaye moo daan mooy daal waat naa ci yàlla làmb bu doon tey jii ma ne Balla Gaye am na solo bi loolu jàllee nag balaa ñuy xuus ci beneen combat bi mu nekk diggante Siteu ak Modou dafa mbirum papier lan nga liggéey. alxames général mbirum papier muy mbirum passeport visa képp koo xam ne da bëgg visa sa passeport na passeport am ma fanaanoo ko wala nga foto ko yónnee ma ma fanaanoo ko defal li ci def defal la sarax bi 300 francs wat naa ci yàlla amul ambassade boo taxaw ñu ñu yàlla delloo sa yàlla delloo sa passeport doo tamponné visa boo na laax de su ma fanaanoo sa wala nga foto ko yónnee ma ma fanaana ko sarax bi 300 francs la bëriwul su ma ko defee ci kattan suñu borom amul ambassade boo taxaw général te doo am li nga na lay def sangat ubbeeku yan nga ciy def. alhamdulilah général am ay la sunguf yoo xam ne yoo xam ne ñuy liggéey la mu nekk cangatu juróom-ñaar fan pour koo xam ne ngaa bëgg alal damay wax ne général liggéey dong taxutoo may alal dafa am loo xam ne liggéey tey moo koy laltaay liggéey bi moo koy laltaay ba ko defee nga dogee mën a am alal wat naa ci yàlla képp koo xam ne defal naa la ko alal ju gaaw nga yam alal ju gaaw alal ju gaaw képp koo xam ne bëgg nga gaaw na gaaw woote am na solo bi loolu jàllee diggante Siteu ak Modou nekk combat boo xam ne ñu ngi koy xaar Siteu ak Modou Lo damay wax ne Modou Lo ba mu waree daan dafa yàgg ba daan mu waree daan dafa yàgg mais Modou Lo ba mu waree daan xam na ma woo ma jox ko secret bi wallaahi lu yomb la lu yomb la loo xam ne boo ko defee diggante bu gàtt nga daan diggante Modou Lo ku a bëri général Modou Lo du ay caaxaar waxee daan tegtal noo daan tegtal du doole Modou gis nga ku ne ma bëri naa moom ku ko ëpp doole ku ko ku ëpp doole yëpp bëri naa moom nga daan la Modou Lo dool daanu ko tegtal moo koy daan tegtal ak sarax moo koy daan képp koo xam ne nag bëgg na sa adversaire am nga ne Modou Lo na moo wat naa ci yàlla combat bii di ñëw Siteu su ma woowee laa ba teg ko yoon boo xam ne daan Modou Lo am na solo bi loolu jaaree dañuy waxtaan ba tey ku xam ba Bassirou xam ne dafay yëngatu ci mbirum samp doomu aadama lan nga ci liggéey alhamdulilah général samp damaa waxoon sax ni bàyyi naa ko samp damaa waxoon ni bàyyi naa ko ndax dafa dem ba ñàkkaloo doomu aadama yi jom gis nga général mbirum samp koo xam ne gisal na yow dootul ñee kenn dootul ñee kenn te dañuy xëy rek ay dorog ak ay nangam ay góor jigéen ak nag loolu total ndax man samp dama koo mën samp mën koo xam ne su ma ko defee moom ànd ak càngat yi nga xam la war naa ci yàlla neuf jours bi sangat yi ci kàttan su moom da ay millions mbirum jaaro aussi la nga ci liggéey alhamdulilah mbirum jaaro nag moom ñu ngi koy bàkkee fu ne fu ne dem naa nag fépp foo gis fu dem naa fa passeport bi sama passeport la passeport bi sama passeport la amul réew moom dugut ci réew yi tubaab ak lu ne jëflante ak moom ci mbirum jaaro dama wax ni koo xam ne bëgg na bayre wala koo xam ne bëgg na ñëpp sopp ko wala képp koo xam ne bëgg na entreprise bu ñu dem ko wala képp koo xam ne bëgg na fu mu dem rek ñu sopp ko bëgg alal insha allahu bu ñu jëflante si mbirum ci kat fan si jaara bi dana ko may alal ju gaaw dama daa bëri balaa ñu ci jox kenn dañ ko seet ba noppi dama xam ne man général sama mbir yëpp seet la balaa maa jox kenn dara dama koy seet am na solo général lii ma la lii ma yor nii moo ànd ak samp place képp koo xam ne yor nga place nga bëgg sa place bi samp di jar général jëral lii ñeent kooñ lay lay féete général lii nga teg ko ci njaay ma waat naa ci yàlla dootu jaayati kenn dootu jaayati am na solo li fees njaay ñëw général doo jaay bëggoon naa sax ñu gën a xuus ci nga xam ci ngay liggéey wala sax ñu xuus ci actualité lu mel ni combat yi ma doon laaj dafa mel ni bi nu may nag jeex na lan ngay tàggatoo alhamdulilah général balaa ñu tàggatoo naa wax ci dinaa wax ci Waly Seck mhm. Waly Seck dinaa ci wax ñaana ñoom Bassirou Diomaye Faye dama ne Waly Seck lii may gis baaxut mhm. lii may gis baaxut dañu uti ñaan Waly Seck sëñ bi dima ni li may gis ñett na te garaaw na dama ne mbirum Ndoro Gueye mii la ca Waly Seck su ko su feeñee laa Waly Seck dana tëdd kaso Waly Seck dana tëdd alal ju bari yi ma gis nii Waly Seck lu bëgg moo ñi mu àndal ànd ak Ndoro waat naa ci yàlla bu feeñee dana du lan ngay tàggatoo li may nag mooy Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko dama ni ñaar ñooñu bu leen kenn jéem a tàqale ku leen jéem ci des ñaar ñooñu sa bopp suñu lañ boo xam ne ñaan leen rek liggéey bi gën a baax mu gën a ñoŋ ñu jëm ci kanam waaye képp koo xam ne yaa ngi ju ngi tàqale leen wallaahi waat naa ci yàlla suuf nga jëm dañu wax ne nag képp koo xam ne bëgg na alaaju gaaw na gaaw woote insha allahu rabbi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf